ñoom ñëpp ay ndaw lañ daanaka man ak ñoom a maase ñu jiital ma ci seen kanam waaw ñaanal leen bu baax a baax baax a baax Mbàkke dèjà jërëjëf ñu ngi koy tuub bu baax baax nag bi nga ñaanee waaw leen bu baax a baax Mbàkke dama am ñoom ñeewante lool waaw dama ñoom ñeewante lool ndax fépp fu ñu nekk rek muy Masaalikul Jinaan gi nga xam ne dañ fay dem chaque àjjuma di fa joxe ay café képp ku leen fekk da leen di filmer di leen seetaan di wax ne waa Kër Sëñ Abdou Karim loolu nag loolu la ñuy yaatale makaarim axlaaq muy dama leen wax ne maanaam ndamu daara ji mooy képp ku ci dugg boo ferul ijji nga ne man ca daara ji laa fere ijji boo mënta jàng xasida nga ne ca daara ji laa ko mënee boo xamul sa diine nga ne ci daara ji laa ko xamee man nee naa leen joxe addiya am na solo ndax ndax tuubaa li abdin muridin saadiqin lahum bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyatin kon addiya farat la ci yoon murid waaye jàpp naa ne ku nekk ci biir daara ji nga defaroo ci ba ku la gis xemmam ma gis ak ni sëñ Abdou Karim loolu moom mooy ndamu daara ji moo tax ñii ma leen xool fépp fu ma leen gis koo xam ne xam-xamam naw naa ko te lépp lu wax dina ci mën a indi ay addi la yu wér ma indi ko ci daara ngir mu leen di jàngal xanaa ñoom ñu bañ a jàng waaye ku ci bëgg jàng ak ci ak ci niveau boo toll indi naa la koo xam ne mën na laa jàngal kon Mbàkke ñun ci loola la nekk yéen ñii ma leen di waxaane ci kanamu sëñ bi laa leen koy wax ab daayira du ziyaar ba ziyaar du du ba màggal suñ tubaa dafa wax ne waqati xawaa ija lazina daamu fi xidmati wa hablahu maaraamu oustaz tafsir mi mi xam na ko ak ak ni sëñ gas jota daamu li xidmati la wax ñi nga xam ne dañoo sax ci liggéey bi suñ borom luñ bëgg na nga leen ko defal te nga faj seeni ajo kon du ziar ba ziar nga wane ak njàmbaar wala màggal ba màggal wala leneen suñ bi buñ ko gisee ak buñ ko gisut yëpp dañoo war a am passif buñ ko gisee ak dégg nga li mu wax sànq képp ku ñëw ndindi di dellu foo mënti nekk moo xam marché Colobane la wala boo nekkoon dañoo war a xam ne kii taalibu sëriñ Abdou Karim Mbàkke la loolu moom mooy ndamu sëriñ loolu moom mooy suñu ndam ñun nee naa leen du dajale àddiyee kese loolu ci la bokk waaye sama yitte mooy képp ku nekk ci daara ji nga defaru ba ko la gis xam ne man ci ci fondation bii man ci laa mënee nangam ci laa xamee sama charia ci laa mën a jàngee xasida ci laa feree iji ci laa wàccee alxuraan wala ci laa ko mbokkalee loolu moom mooy ndamu daara ji képp nga xam ne yaa ngi ñëw ci daara ji di dellu boo demee seen kër seen waa kër war nañu xam ne kii dolleeku na dara sag bon tasee ma wax leen ko mën a leen képp ku doon ñëw te sa waaju doo ko sukkal sax boo koy nuyu muy góor wala jigéen war ngaa fexe ba boo jógee ci rencontre bii ñu tase soo demee nga commencé sukkal say waajur ñu xam ne kii daara ji mi dem am na lu fa jëlee ñu xam ne kii sëñ Abdou Karim Mbacke li muy woote moom mu ngi ci waaye su fekkee da nga ñëw ci daara ji di delloo te boo delloo seen kër bu la say mag bu la say mag waxee nga sànni leen loxo loolu du makaarimil axlaax makaarimil axlaax du benn jikko waaye yu baax yëpp moom moo daj ci te si sëñ Abdou Karim Mbacke moom mooy makaarimul axlaq dégg ngeen oustaz tafsir wax sàng kii chaque alxames mu def émission ci daara ji te bu ko defee dama naa leen képp ko am loo riir loo réere ci sa diine laaj ko mu tontu la loolu xanaa yomb na kon góorgóorlu leen ngeen xam ne affaire bi du ziar kese liggéey bi avant ziar la góorgóorlu leen bu baax a baax jërëjëf Mbacke maa ngi tudd bu baax a baax